Everybody, remind the Gambian something. I don't know, maybe some people can sing along with me. liggéey jot na Gambia am na boppam boppam liggéey jot na Gambia am na boppam boppam liggéey jot na Gambia am na boppam boppam liggéey jot na Gambia am na boppam everybody liggéey jot na Gambia am na boppam boppam liggéey jot na Gambia am na boppam Gambia am na boppam boppam liggéey jot na Gambia am na boppam one second liggéey jot na Gambia am na boppam boppam liggéey jot na Gambia am na boppam boppam liggéey jot na Gambia am na boppam boppam liggéey jot na Gambia am na boppam. bu ñu tayal faj leen faj leen ma faj leen ma. faj leen ma.